jaxalanaa yàlla na nu def allahu yàlla minal xaw mi nu bokk ci nit ña allazina ña nga xam ne lay soo déet ñoom yaxaafoo na ñuy ragal wala hum te déet ñoom yaxsanoo na ñuy jàq dane yàlla na nu yàlla boole ci ña nga xam ne duñu am lu ñuy tiit duñu am lu ñuy jàq almawtu dee wa su'aalu ak laaj ma fil xubóori ca bàmmeel ya yedd xul dana tàbbi fil yow mi ca bis ba xalal mashhuri ca lañu siiwe id ngir alxiyaamatu bispenc xiyaamataani ñaari bispenc la suxra bu gën a ndawe wa kubra ak bu gën a mage faf xamoo na ngeen dégg bayaa nii sama gënal nee na dee ak laajum bàmmeel ak mbugalu bàmmeel mbaa xéewalu bàmmeel maanaam dundu barsax googee yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ne wares ne koo gëm fekk dee sax moom lu ñu jàkkaar lool la ba ñu baree bari weddiwuñ ko waaye nag ba ñu waree gëm yooyu itam nee na soo gëmee bispenc rek yooyu duggaale na ca ndax bispenc buñ ko waxee day doon ñaar bu ndaw ak bu mag bu ñu nee bispenc bu ndaw nag mooy dee ak laajum bàmmeel ak dundug bar sax googee ba kera bispenc bu mag ba di taxaw moo tax sax mu teg ci lii suxraahuma gën jaa ndawe ci ñoom ñaar almawtu mooy dee maanaam dee ak laajum bàmmeel ak dundug bar sax googee loolu mooy bispenc bu ndaw wa amal kubra ndaal bu mag ba nag faxiya moom miitatul baraaya mooy deexuk mbindeef ya toran mboole seen te awaluhaa ak njëlbeenam min nafxatin mi ngi tàmbalee ci wal saaniyatin gu di aji ñaareel fi sóore ca bufta ba fi ahwaalihi ca tiitam ya al aatiyati aji dikk ilaa qaraaril baadi ba ci saxuk ñenn ña fil jinaani ci ajina ya bi idnihi ci nammeelam moom yàlla wal baadi ak saxuk ñenn ña fi niiraani ca sawara ya nee na bis penc mag moom mooy bu yàlla walloo israfil walu ñaareel ga mu daal di wal bufta bi wal googu mooy dekkal ndax wal gu njëkk ga moom mooy tukkal adduna lu amoon ruu daal di dee nee nañ diggante wal bu njëkk bi ak bu ñaareel bi ñeent fukki at lay doon bu walee walu ñaareel gi nag ba lépp lu deexoon dekki nag ñu taxawal leen ci benn béréb nag àtte seen mbir ba ñay dem àjjana dem ca ñay dem kërug safaan ba dem ca waaw loolu moo tudd bis penc bu mag asmauhu ay turam nag zakaraha tudd na leen du sha'ni boroom mbir ma kasiratan mbir mu ñu aji bari fii suwaril quraan ci saari al quraan nee na turi bis penc nag moom yàlla wax na ko lu bare bari ci booy jàng al quraan ci biir saar yi muy tur yu bare bari yu wuute wuute waxee te ñoom tur yu bari yi dalilatun aji tegtale lañu xalal axwaali ca tiit ya wa shiddatil awjaali ak taruk njàqare wal axwaali ak mbir ya bi mu ne turi bis penc suñu borom da koy tudd di ko lim muy bari lool ci alquran mu ne nag tur yu bari yi te lenn képp tudd ko day wane rek ne bis penc lu bari ay tiit la lu bari ay njàqare la lu bari ay mbir yu doy doy waar la miqdaaruhoo ab kemam mina sini na ci at ul waxal ne yoo xaddu def na ko lim xam si ne mooy juróom fukk muy juróom fukk alfan ci ay junni wif xamaa mu dëppoog la nga xam ne xaala wax na ko assamadu yàlla ki ñu jublu ci aajo nee na yàggaayu bis boobu nee nañu day yàggee ne juróom fukki junni at yi nga xam ci ati àdduna tamuy benn bis dong ci ni ko suñ boroom waxee ci alquran waxudda lima leef na min ahwaali yawmil xashri mu bokk ci tiiti bisu pang ba axdu saa ifi jàpp téere jëf ya maxan boole seen fil jaxari ci lu bir ne bokk na ci tiiti bis penc jot gi kenn ku ne di jot kayitu jëfam te kenn ku ne day mën a jàng xam la ca nekk te kenn ku nekk na nga jotee saw kayit rek ca ngay daal di xamee foo jëm ak luy sa mbir ba tax mu ne jotu kayit yooyu bokk na ci tiiti bis penc yi fakku lu mën képp koo xam ne yaaxus dana jàppe alkitaaba téere ba bilim naa ci am ndeyjoor fii daalikal yow mi ci boobee bis fayen joo dana mucc min xiqaabin ci mbugal képp koo xam jote na ab téereem ci ndeyjooram ca bis boobee nga xam ne kon kuy mucc la kuy texe la amal lës yi ndaal ka nga xam ne yaaxus dana jàppe bil yusra ci càmmooñ xanan ci ëllëg fa sayulaqihi xalsat naa taseeg moom xiqaabu mbugal waradan ak alkane koo xam ne nag moom dafa jotti téeréem ëllëg ci wetuk càmmooñam nag na xam ne kon moom daa bokk ca ñi jëm ca kërug tiis ga ak kërug mbugal ga jaxala naa yàlla nu def albarru yàlla mi aji baax arrahimu mi aji yërëme sàmma foofee minal lazina nu bokk ci ña nga xam ne laa yaraw na duñu gis xamman jàqare bi jaahi man ci darajey ka nga xam ne nusbit danañ saxal nusbitu danañu saxal asalaata ñaan dolli teral xalehi ci moom ma asalaamihi ànd ak dolli wóoloom xalaa kulil hudaati ci mboolem way jub ya yal nañu yàlla boole ci ña nga xam ne foofee duñ fa gis dara ci tiis ak jàqare ci daraje yonent bi nga xam ne dañ koy ñaanal rek yàlla dolli ko salaatu ak salaamu moom mboolem ña jub di ko jéem a roy faslu li ab dog la fil imaani ci gëm bil qadari ci dogal wa xallamanaa yal nanu xamal allahu yàlla daqaa'iqahu ay sew-sewam wa sabbaranaate mu muñ loonu xale yi ci moom amin dog bi nee na fi lay waxe nit ñi gëme ab dogal dogal bi la ne yal nanu yàlla xamal sew-sew yi dogalam te mayu nuy muñ rek lépp lum dogal imaanukum seenu gëm yaa ayuha shubbaanu yéen waxambaane yi bil qadari ci dogal ba ak tasdiqu moo di dëggal wal iqaanu ak wóolu bi anna kulla waaqiin ci naka lépp luy aji tab bi maanaam ci naka lépp luy aji xew rek fii zamanin ci jamono min azmunin ci ay jamono fii sirin ci lu nabu aw fii alanin wala ci lu feeñ bi ilmi rabbikum nekk na ci xamuk seen boroom wa bil idaadati ak ci nammeel ga wa qudratin ak kàttan la xooñal ko faawoon na ngeen wattu al ifaadata njariñ la nee na gëm ab dogal moom mooy nga xam ne rek lépp lu xew day lu yàlla xamoon nar ko rëdd ne ci waxtu sàngam lay xewe ci béréb sàngam ci anam sàngam bu àggee ci waxtu woowa ak béréb boobu ak nam ko rëdde woon daal di amee noona dara du rëcc dara du tombe loo gis rek ab dogal la waqaxa moo xam xew na waqaxa moo xam tàbbi nag mooy xew na rek xayran mbir mu ñu aw yiw waxuwa te moom ittibaaxul moo di topp sunna aw baana wala mu feeñ charan mbir mu ñu aw ay waxuwa te moom ibtidaaxul mooy topp bidaa nee na loolay xew mën naa nekk aw yiw ni ki gëm yàlla topp ci yoonu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw yiw la ndax day jur ngërëmul yàlla ak àjjanaam waaye ba tey loolu mën naa nekk safaanub yiw te mooy ay mel ne weddi yàlla mooy sunu si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw ay la ndax day jur merum yàlla ak sawara yooyu yëpp lu mu ci mën doon na xamal ne dawlub yàlla ndax amul kenn koo xam laata ngay juddu defal nga yàlla lu tax mu may la gëm ak topp mbaa tooñ nga ko laata ngay juddu ba tax mu xañ la gëm ak topp la tax mu def yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gën ci mboolem lam bind coobareem rek la la tax mu def abu jahlin mu weddee noonee ba texee dee noonee loolu lépp ab dogalam rek la xasala moo xam am na xol wan mbir mu muy aji neex ka zawaabi si tibaaxin ni ki yoolu boroom topp sunna aw jaawala mu dikk murran mbir mu muy aji weex mooy naqari ka xiqaabi zit si daahin ni ki bugalu boroom topp bi daa la xew mën naa doon lu neex mel ne faye gi yàlla faye ëllëg ña gëmoon tey topp mu leen di faye ngërëmam ak àjjanaam waaye ba tey mën naa nekk lu naqari mel ne bu ëllëgee na muy mbugalee ko mettital ña weddi woon ak ñay moy ci coobareem loolu lépp de boo ko dee seet day dellu ci ab dogalam rek teewul nag ñu war a sabablu gëm geeg topp gi rek waaye lépp moom ci dëgg-dëgg dogal baax wa annahu ak naka luy mbir moo di lay sa yu asiru di jeexiital layaa dun dara fii asarin ci jeexiit maa jum man di doon xayru xaaliqil xibaad yi ndare aji bind jaam ña bokk na ci pas-pasu lislaam nga gëm ne jëf lum tuuti tuuti bu feeñee ci jëmm itam jëmm jooje jëfu ko yàllaa ko jëf bu noppi rek mu feeñee ci jëmm jooje waaye ca dëgg-dëgg yàlla ca dëgg-dëgg jëmm ja deful dara dara yàlla moo def waaw ni kii buñ gisee sawara bu ko dara jegee mu mel da koo lakk wala ñu gis boo naani ndox ni nga mel ne ku màndi wala ñu gis boo lekkee ni mel ne ku regg wala ñu gis nit fetal nit mu daal di daanu wala mu cor ko jees mu daal daanu yépp lu ci mën doon rek yàllaa ko def daa fee jëmm jooju rek waaye ci dëgg-dëgg def defu yàlla xam ne kon jëf lu mu tuut tuut rek yàllaa ko jëf dana feeñu ci jëmm nag mu mel ne jëmm jaa ko jëf waaye ci dëgg-dëgg yàllaa ko def maanaam bi yàlla defalee nit xel xamal ko ne ko boo bëggee njariñ kat fee laa ko def demal wuti ko boo bëggee moytu safaan bi kat xam na lee safaan baa dee ko moytu waaw xel mi nga xam ne moom la yàlla booleeg nit ba nit moom xàmmee na njariñam ak lorom di waaxu jëm ci njariñ la di moytu lor ja nag loolu tax ñu koy àtte rek ci noonu xam ne kon sabab yi lu yàlla tëral rek ngir mën ci àtte nit ñi waaye ci dëgg-dëgg moom jëf ci moom jëfam rek la wala wil xalqu doon te mbindee fi ijtamaxa dajaloona xala nafxikum ci seenug jëriñ lam yaqdiroo duñ àttan xale yi ci moom xaw du mukk in manaxa ndem bañ na ndem tere na mooy ndem bañ na yéena mbindee fi yépp duñ maase woon ci bëgg laa jëriñ te yàlla naru ko du tax ñu mën ko ba li fi nekk law tamaale oo doon te mànkoo nañu xala taxariki ci yëngal ga li dara ñel aw sang lañ fàq dong maxat tashriki ànd ak bokkaale ga duna iradatin ci lu ak namel dina rahmani ku tukkee ci aji yërëme ji la xajasoo kon ñu lot xan fu walis yëngal ga bila tawaañ ci lu yeex waaw kon lépp yàlla waaye aw sang lañ sax bu ñu ñëpp maase woon ci bëgg koo toppali fa mu nekk te yàlla àndu ci rek duñ ko mën wa kullu ma lépp loo xam ne axtaana teggi nanu lam yakun nekkutoon moom yàlla yuridu dinam ay yusibana mu jotnu fi zamanin ci jamono yéen lépp loo gis mu jóg tegginu rek xamal ne yàllaa ne woon du nu dal mooy lu jóg teggi la xamal ne rek yàllaa ne woon loola du la dal kadaaka naka noonu maa la nga xam ne asaabana jot nanu lam yëkkut nekkutoon moom yàlla yuridu dinam ay yuxti ana mu tegginu min mi xanin ci ay coono ba tey lépp la dal de xamal ne yàlla ne woon faaw mu dal la du la teggi kon ñaari way dañoo safaanoo wu njëkk wi dane lépp la teggi dalu la xamal ne yàlla ne woon du la dal bu ñaaral wi ne lépp la dal xamal ne woon yàlla ne woon dana la dal du la teggi wala zu laa ilaha illa allahu baatub laa ilaha amul benn buur illa allahu ndira yàlla muhammadun muhammad ar rasulu mooy ndaw la min mawlaahu tukkee ci boroomam yejjimaaw dana boole jumlata dihil mahaani mboolem yi lay maanaa badaa feeñ na liitaa ngir lii xalaamatul imaani ngir mu muy màndargam gëm nee na baatub laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëmb na lépp lépp li war a gëm ci lislaam moo tax ñu def ko màndargam gëm nga xam ne boo waxee baatub laa ilaha illa allah seere ko ci la ñuy jàpp ne yow ab jullit nga boo ci boolee fas ko ci sa xol nag kon jullit nga ci biir ak ci biti boo ko waxee ci làmmiñ kese te fasoo ko ci xol bi nag nag ko naafiq yi daan defee jamono yonante bi ndax bëgg a mucc loolu moom ak naafiq la gu doy waar koo xam ne sax kéefa gu wére ko tane fala tuaado bu leen noonoon teeg man koo xam ne ra'aytum gis ngeen faahu gémmiñam ga yuxriju muy génne laa ilaha illa allahu baatub laa ilaha illa allahu yéen ak ngeen gis mu nangoo wax baatub laa ilaha illallahu rek na ngeen ko bëgg ngir yàlla bu leen ko noonu mukk mukk képp ku nangoo seere ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah rek yéen na ngeen ko bëgg te yàlla tax id ngir lay sa fil azkaar yi déet muy nekk ci sikkar yi maa loo xam ne saa waaxu yamonte naag moom xataan ci lu dog tamaa rawaaxu naka ma ko nettalee man ka nga xam ne rawaaxu nettali na ko lépp lu ñu tudd ci aw làmmiñ na xamal ne baatub laa ilaha illallahu mu ci gën a màgg amu ci lenn lenn lu mel ne moom bu ko defee bëgg nañ na nga di ko bari lool lool bu mucc mu jaxasoog saw yàpp ak sa deret su boobaa da nga ci gis ci ay secret rek njariñ loo xam ne yàlla rek mooy xam na mu toll idi ngir al uluhiyatu nekk di allah ay yastaxniya moo di bu doyloo bu la neexee ne id ngir al uluhiyatu nguur ga ay yastaxniya mooy bu doyloo muxnil agniya yi aji doylu loo way doylu ña xan kulli ma siwa walis lépp lu dul moom ma haf ci xaari kulli ma siwahu ànd ak aajo woog lépp lu dul moom ilahi jëm ci moom yàlla yàlla màgg na malikan mbir mu muy ab buur xif naaxu bopp ragal nanu ko dafa wax ni baatub allah ci bopp rek nga xam ne dañ koy firee yàlla moom allah mooy jëmm joo xam ne daal daa doy lu ci boppam sëkk sëkk sëkk aajowul kenn mbaa leen ba noppi nag lépp lépp ak képp képp aajowo jëm ci moom waaw jëmm joo xam ne moom moom ci boppam aajowul kenn mbaa leen te lépp aajowo jëm si ci moom képp aajowo jëm si ci moom kenn mënta dem bàyyi ko gannaaw loolu mooy allah allah loolu lay tekki moo tax mu naa la tafsiru laa ilaha illallahu pirim laa ilaha illallahu nii la tëdde mooy laa zaaxinan amul kenn kuy boroomu doylu xan kulli ma siwaahu walis lépp lu dul moom ila illaahu ndare buur bi alwaaxidu kadi kenn alqahaaru kadi ab notaakoon alqaadiru kadi aji attan alfaxaalu kadi ab defaakoon maa la nga xam ne yaxtaaru dana ko tànn te kat wala mu yëkkun amut man koo xam ne it kullu xëyrihi képp ku dul moom iftaqara aajo woona ilahi jëm ci moom illallahu ndare yàlla xaaliqul bashari mi aji bind mi ndeefi kon pirim laa ilaha illallahu da nga koy def ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy amul kenn kenn koo xam ne doylu nga ci sa bopp sëkk sëkk aajowoo kenn aajowoo lenn ku may yàlla yàlla rek mel noonu loolu mooy benn tomb bi tomb ñaareel bi mooy amul kenn koo xam ne ñëpp la aajowoo lépp la aajowoo kenn mënta dem bàyyi la gannaaw ku may yàlla loolu mooy tomb ñaareel bi bu njëkk bi day wane ak doyloom walis képp ak ñëpp ak fépp tomb ñaareel bi di wane aajowoo gu ko lépp aajowoo ak fépp ak ñëpp rek ñëpp ko aajowoo daal tuma muhammadun rasulullahi topp nag baatu muhammadun muhammad rasulullahi ndawul yàlla xale yàlla nekk ci moom azka salawaatillahi gën jaa selli teral yàlla yi xadd xala dugg na al imaanu gëm ga bi rusuli ci yonante fii ci moom wal ambiyaay ak ñañu solo wal malaayiki ak malaaka ya ar rusuli ñadi ndawi yàlla wa hakasa niki ni al kutubu téere ya wal yawmu bis penc itam daxala tàbbina fii ci moom wa maag la nga xam ne istamala làmboo na moom bis penc xàll yi ci moom aydan ba tey wa daxala dugg na fii ci moom aydan ba tey ak imaanu gëm nga bi qadaril qaadiri ci dogalub aji dogal ja yaa shubbaanu yéen waxambaane daa wax ne rek baatu muhammad rasulullah baat la boo xam ne lépp li ñu war a gëm gannaaw yàlla rek dugg na ci moo xam gëm yonante yi la mbaa téere ya mbaa bispenc mbaa ab dogal yooyu yëpp dugg na ci biir alxismu xaaj bi assaani bi aji ñaareel min aqsaami diini man ci xaaji diine yàlla mi nga xam ne laa yu daanii du jegente kenn baabu tafaquhi mooy buntu fiq aljaalibu bi aji ñoddee li tanabuhi jëm ci yeewute nee na xaaj bu njëkk bi di gëm foofu la yam mu bëgg a tàmbali xaaj ñaareel bi nag ci xaaji diine te mooy buntu fiq muy sharia islaamukum seen islaam zikrul ilahi mooy tudd buur bi wasalaatu ak julli wasawmu ak koor wal xaju ak aj te daalika naka noonee azakaatu azaka islaam mooy wéyale santaane yàlla ci kaw suuf lañ la digal nga di ko def lañ la tere nga di ko bàyyi xam fa nga waree bañ koo weesu bu ko defee nag daa am ay ponk yoo xam ne mooy ponk lislaam bu ñëw ci addis ba muy juróom ba ci jëkk mooy seere ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñaareel ba mooy julli ñetteel ba koor ñeenteel ba asaka aj màkk ko man nag mooy leen juróomeel yooyu mooy ponk lislaam wal kullu képp ci ñoom nag chart ab sart la lil imaan yi ñeel gëm ñeene yëpp nag bala cee kenn baax gëm jiitu ko bu fekkee ne gëm jiituwul rek dara ci boo ko defee du baax su ko defee nag tudd gi yàlla seere ko ci saw làmmiñ moom day dellu ci fiq bi gëm ga ci xol bi nag mooy dellu ca tawxiit ba kon gëm ci xol bi mooy dellu ca tawxiit ba seerek yi lam nañu nag bañ xam ne yow mii bokk nga julit ñi la ca àtte di la àtte àtte julit loolu moo bokk fii ci islam ñi koy wooyee fiq waxtala fa wóote na baadu salafi lenn ci dawal ba fii saydihi ci dollikoom wa naqsi aku wàññikoom ña jiitu woon dañoo wuute ci waaw ndax gëm moom dana yokkoo ko wàññiku wala déedéet nam toll rek noonu lay toll mënta yokkoo ko wàññiku wax ji gën a wóor moom lay bëgg a wax mooy waawaaw dana yokkoo ko wàññiku ba tax mu ne wala arjaxu la gën a lëng an nuqsaanu moo di wàññiku ga wal siyaadatu ak dolliku ga in siida ndeem dolleef na aw nuqisa wala wàññeef fil xibaadati ci jaamu yàlla ga nee na gëm mën naa yokk mën naa wàññiku loo gën a bari sa jëf aw yiw te yàlla tax di ko sellal rek soxal gën di leer sa gëm gën di yokku loo gën a néewal sa jëf rawante na nag di moy ak xëtt ndigal di wéy rek xol bi day gën di lëndam mën naa am sax mu dem ba këris benn yoon moo tax gëm wax ji gën a wóor mooy mën naa yokk mën naa wàññi ko wax yi la waxees na ne laa yakun du nekk daa zaydin di boroomuk dolliku wala yakun te du nekk daa naqsin di boroomuk wàññiku wala xulfa ci dit genn wuute jalaa muy feeñ am nañu ne jëmmi gëm gi ci boppam moom du yokkoo ko wàññiku waaye meññatum gëm nga mooy yokkoo ko wàññiku ci kaw na nga bari li say jëf mbaa nanga ko néewale waaye jëmmi dëggal gi ci xol bi rek moom du yokku du wàññiku waaye meññat ma nag moom mooy la muy juróom moom gëm nga nag mooy yokkoo ci jëf ga ak ñàkk ak wàññikoo ca ñàkk gaa jëf am nañu wax loola faslu ni ab dog la fi taxaarati ci laab ndegam boo weesoo gëm yàlla moom julli moo gën a màgg ci lislaam te julli balaa baax laab da ko jiitu moo tax kon mbirum laab lay njëkk a wax ina taharata naka laab tax sulu dana ame la taxi fa ñoom bil maay ci ndox ma mutlaqan mbirum muy mutlaq alaamaa ci kaw la nga xam ne naqaloo toxal nañ ko nee na laab moom moo xam laabu xadas la moo xam laabu xabas la ndox rek lañ koy defee bu ndox amul na ñu tiim rek waaye ndox moom ci la ñuy dindee sobe ci la ñuy jàppe ci la ñuy sangoo farata waxoo moom nag ndoxam mutlaq àll si mooy ma nga xam ne salima mucc na min taxayurin ci soppiku fii taamihi ci cafkaam nga wallaw ni ak melowa max riihin ànd ak ak xet duriigu xameef na ko nee nan buñ ne ndoxam mutlaq nag ñu wax ne moo mën a jaamu yàlla ne ki moom ngay mën a jàppee moom ngay mën a sangoo ca ngaawil farata moom ngay mën a yóbbu wanag moom ngay mën a dindee sobe ndox mutlaq muy ndox moo xam ne daal melowa soppikuwut cafka ga soppikuwut xet ga soppikuwut ci dara loo xam ne mëneesoon na koo maytu ba du ko jege ba du jaxasoo moom ba di ko soppi bu dee nag la ko soppi moom yàllaa ko booleeg ndox du ko yàq waaye ndegam loolu mëneesoon na koo maytu rek moom bu ko soppee ci couleur mbaa caf ko mbaa xet rek dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla waxay suma taxay yara fu mu fi soppikoo nag bi taaxirin ci aji laab fa huwa kon moom taaxirun aji laab la ci jëmmam wala ñu taaxira waaye nag du mën a laabal nee na saa yoo xam ndox mi soppiku na te la ko soppi lu laab la mel ni café moo ci dem wala diw wala suukar ak yu demee noonu ba nga mën ko caa xàmmee kon jëmm ja laab na ci mën nga koo naan mën nga koo togge mën nga koo sangoo sangum saabu ak yu demee noonu waaye nag du mën a laabal du mën a laabal mooy doo ci mën a jaamu yàlla ni ki yóbbu ko wanag mbaa jàppe ko mbaa sangoo ko ca ngaayul farata moo tax mu teg ci yasluhu dana yiw li la aadati ñeel aada laa li taaxati waaye du caagéenu ñeel ak topp yàlla aada nag la misaale kat tab xi niki togg wa shur bi ak naan la dal jamaaxati fa mbooloo ma mën nga cee togg mën nga cee naan ak yu demee noonu muy wàllu aada waaye nag bul ci def ibaada ak jaamu illaa isa kaa nga dem nekk na mu laa si mën di aji taqoo loxoo ñeel ko xad laa sama juj taqoo na fii xaalibin ci la gën a not gama xarati niki saleeñ lu may na nga xam ne loola yàllaa ko boole ndox li ci ëpp luñ tàggoo mais ndox mi fañ koy wëggee mooy fañ koy génnee ca suuf sa moo def sàlleeñ mooy ban bu xongu cooy xam ne bu ndox mi génnee day xongu cooy wala ban ba ñuul kukk bu ndox mi génnee ñuul kukk wala foofu am doji kew mbaa doj leen loo xam ne daal bu génnee day saf ci ndox mi mbaa da cay feeñ ci couleur yi yëpp du ci wàññi dara ndax lu yàlla dogal la ba tey bu fekkee dafa yàgg ba am ewal xanjaan mbaa mu am mbaalaan mbaal yi demee noonu rek yëpp du ko yàq sumbal lës yi topp la nga xam ne zu taxa yurin boroom ak soppigoo la bi naj si ci sobe lay sa bi taaxirin du aji laab wala mu taxirin te du aji laabal bu fekkee la soppi ndox ma nag moom day sobe ni ki sàngara mbaa deret mbaa sawum fas mbaa xaytay ganaar moo ci dem ba sopp ko ñu mën ko caa xàmmee kon ndox ma yàqu na ci yaari wàll yépp la man daal léegi mooy suuxate ko lu mel ne loo bëgg a suuxat ci xeeti mbay yi wala xeeti garab ak yooyu ak jox ko jur mu naan rek waaye mënis koo jaamooti yàlla mënis koo jëfandikoo itam ci wàllu aada ndam la ko defoon sax faaw boo ko bëggee jëfandikoo da nga koy raxas ba mu set fas nu li ab dog la fi salawaat ci julli ya alxamsi ya di juróom xaddu saxa wér na ne ànd na salawaat naka julli ya alxamsi ya di juróom faridatun farata lañu xokkuman ci àtte waxiitum yàlla na fegaleef leen labsan am lant bi dikri ci tuddug alquran wa sunnati ak tuddug addis wal ijmaax ak dajak fóore yi nee na julli juróom moom maase nañ ci ne farata la mënta ñàkk alquran da ko wax yonente bi wax ko ci addisam borom xam-xam yépp maase ci fa man yakun ku nekk xalamtinaa indi nekk ci bañ min ha julli juróom jaxdan ngir weddi la xaa ñel leen wax wa kon moom kal murtad yi mi ngi mel ne aji murtad fil hukmi ci àtte yustata bu def na ko tuubloo jiimal xaddi diirub ñetti fan fa in yettum ndem dana tuub yutrak kon def na ko bàyyi wa in lam yettum ndem tuubut naqtulhu kon nu rey ko bi say fi ci jërsi bi dar bi raq bi ci dóoru baat ba nee na koo xam ne day bañ julli juróom ñu ne ko lu tax mu ne man tayelum waaye dama gëmul ne lu war la ndegam nekkoon na ci lislaam itam kon wax na lu ko ci génne mooy liy wax murtat soppiku na ko léegi maanaam kon kooku soppiku na ko murtat te dugg ci lislaam ba noppi bëgg caa génne noonu duñ ko nangu dañ koy may ñetti fan kay mu tuub gëm ne julli war na te di ko def bu ñetti fan ñi matee rek te nangu wuta tuub ñu rey ko suñ ko reyee dañuy jàpp ne reyu kéefër la kenn du ko defal dara ci li ñuy defal ab julit mooy walay sa yuuxu salu deefu ko sang wala si yukk fanu deefu ko sàng wala la xodee di ko ñeel asalaatu jullee lay sa yuddu fanu deefu ko suul fil muslimina ci jullit ña nga xam ne fal imaamu ilimaan ba yursil dana yebal soxsan jëmm yu waari joj dana ko suturaal wala yustaqbal deefu jubale xiblatu naa sun xiblatu naa sunu xibla bi ci moom wa maalunti alal yaxsul joj dana am yu ci xalu def na ko def fii bayti maalil muslimina ci bayti maalub jullit ña ne kooku buñ ko reyee ci wedd gi warug julli kon ab yëfa lañ rey kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko kenn du ko jullee kenn du ko suul ci armeel jullit ña kon na ilimaan jeebal jëmm joo xam ne moo koy suturaal rek gas ko suul ndax ormal jëmmi doomi aadama ji kenn du ko jubale kaaba gi alalam ba tey ña ko war a doon buñ ko doon ndax doon nante dañ ci sart bokk diine te moom ñu ngi ko rey ci kéefar kon nag ñetti ay julit waran koo doon duñ ko doon dañu yóbbu àllam ca baytimaal muy kees gi ñuy def àlal julit ñi te di ci wéyale maslaay julit ñi wa man aqarra koo xam ne saxal na bil wujjóobi ci warug julli wam tanaate mu bañ min fi alihaa ci ak defam wala loxoo di di ko ñeel xudrun ngànt yàqam loolu dana tabbi fa indahoo naka moom mu wax xarun ku ñu yeexe lay doon xataaye ji ba dikk waxtu salaati waxtu julli li xaboo li ngir ak nangu xadru jigoog yaakaareef na ko koo xam ne nee na man day gëm naa ne julli war na waaye nag damaa taayal rek de ba duma julli dañ koy wax ne ko ah julli moom boo bokkee ci wàllu islam da ngaa war a sàmmanteeg moom di ko defee ci waxtu wa nañ ko santaane ñu daal di bàyyi nag boo waxtu julli jot àttekat bi taxawal ko ne ko ay ci julli moo tax mu ne su mata yu umaru topp def na ko digal ilaa an yëpp xaa jëm ci ba des miqdaaru rakhatin kem ab rakka fàq dong laa sab xam du caagiyoon ak jiitu bi saj da tey xaa ànd ak ñaari sujjootam min daroori sin ci daroori yu bila fatihatin ci dul fatiha wala atidaalin du caageenu yemoo xukkile bopp xelloof na ko dañ koy digal naa ko julil julil te sax mënees na léeg-léeg ñu xupp ko mbaa xaw ko dóoraale mbaa xaw ko cuutaale dara ba kera ñi dema dem ba nga xam ne waxtu ñaaral wa ñu wooye daroori yu sax dem na bi bëgg a jeex nga xam ne benn rakk bu sotti daal boo ko bëggoon a julli te jàng fatiha teylu ko ba cër yi jub cër yi def tekk sax dafa xaw a xaj daanaka su àggee foofu nag moom fa la muñal ngay yem bu nangoo julli baax na bu nangoo wut a julli nag ñu daal di koy rey ak gees yi mooy fayin abandeem bañ na xattale foo kon rey ko dul amri boroom mbir ma mbaa boroom digal la bi say fi ci jaasi ja xaddan reyu gétan duuna xattali kufurin ci lu reyu kéefar kii moom buñ ko reyee rayuk jëtan la mooy ab julit la daa def luñ ko war a rey rek ñu rey ko du tee ñu sang ko sang ko jullee ko sul ko ci armeel julit ña ña ko war a doon doon ko yépp moom des na ko defal walaw tanat dama doon te rëccu woon na waxaal te mu wax ne afal danaa def li xaw fi maxlakin ngir ragal alku fa lay su yuqbalu def ko nangu nee na bu ñu demoon ba di ko bëgg a rey mu ne bàyyi leen ma danaa julli waaye da koo digg rek ne bàyyi leen ma danaa su boobaa kenn du ko bàyyi waaye bu ne bàyyi leen ma ma julli fi saasa moom ñu bàyyi ko mu julli wala yol yi du méngoo salaataxoo julleem nga du fadlin borom nga neel li ko yeggoone ngir mu nekk zaajiran di aji jajji ba di aji xupp lil misri ñal morom ma kii taaye la julli ba ñu rey ko nag nu wax ne du tee ñu jullee ko moom ndax julli la dañoo bëgg waaju baax ak mbooloo bañ faa teew ca rob ba téere dañoo bëgg rek ñu woyofal rob ba waaju baax wala ku siiw ji ak mbaax bañ faa teew bu ko defee rek buy woyofal rob ba dana tax ñu bare bari moytoo def lu mel li mu def bu ëllëgee waaye buñ ko fonkee waaju baax teew fa mbooloo mu bari fa ñu fonk ko day mel ne kon deful dara keneen daal di sawar a def